ñun évêque u Sénégal labbe yi jéem a organiser pèlerinage yi ci paroisse yi loolu moo xew leen ñu koy rafetlu bu baax a baax di gërëm labbe yi ci seen liggéey pèlerinage bi bi ñu def ci paroisse bi pour ci paroisse yi am na solo lool te yal na yàlla nangu ñaan yi ndaa mu doon sunu njëriñ ñun ñépp ci ndoortewu sunu liggéey fii ci Cap des Biches dalal nañu ku ñu tuddee nonce apostolique monseigneur Michael Bana mooy fi toogal pape François waxtaan nañu ak moom li jëm ci dundu jàngu bi ak dundu forme ak dundu suñu diocèse yi waxtaan nañu itam ci réforme réforme séminaire yi ak li jëm ci jàngu bi ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ñu ngi gërëm ñu ngi gërëm bu baax a bàyyi itam njiitu réew mi président Macky Sall mi ñu dalal may ñu audience pour ñu mun a waxtaan ak moom jëm ci jàngu bi ak yi dem ci itam ci réew mi ci ndaje yi toog nañu sotante xel ak ñiy jàngale ci sunu séminaire yi maanaam waxambaane yi ñi bëgg a nekk labe dañuy dugg séminaire ñu am ñetti séminaire séminaire bi nekk Njafat ca diocèse u Kaolack séminaire ba nekk ca Brin ci diocèse u Ziguinchor ak séminaire bu nekk ca Sébikotane ci diocèse u Ndakaaru def nañu bilan seen année bi ak résultat yiñ ci am gërëm nañ leen bu baax a baax te toog waxtaan ak ñoom itam ci orientation yi rom joxe léegi ndax njàngale bi mën a jëm kanam ci sunu séminaire yi am nañu université bu ñu bëgg a ubbi fale Cakubalang ci région Casamance comité bu koy tappatoo ñu tuddee ko comité de pilotage ñëw ñenu fii ñëw nañu fii waxtaan ak ñun pour wax ñu fan lañu toolu ci liggéey bi toog nañu itam ak li ñuy tuddee bureau de supérieurs majeurs dafa am ay kuréelu mbootaayu religieux ak religieuses yu nekk ci Sénégal di jàppale évêques yi ci liggéey bi toog nañu waxtaan ak ñoom parce que dañu am école de formation bi nekk ca si euh, Cap Karak foofu dafa xat léegi ñu bugg a toxu dem ca Kignaabour waxtaan nañu ci loolu toog nañu nag jéem a xalaat waaw Sénégal fan la toolu tey fu ñu fu ñu nekk di fàttaliku li xewoon fii yëngu-yëngu yi amoon fii ci weeru mois de mars ñu yaakaar ne li fa amoon dafa doon màndarga boo xam ne ne dañ ci war def sunu xel ndaa sàmm sunu sunu réew mi ci li gën a baax ñu xam ne boo nekkee ci nguur gi boo defee politik boo nekk ci administration bi foo mënta doon ci Sénégal ñun ñëpp ñoo ko moom te li ñu war a jiital mooy intérêt wu Sénégal du intérêt wu parti politique du intérêt particulier yi ñu di fàttaliku sa ne am na vingt cinq ans li ko ëpp sa sunu mag yi nekkoon évêque évêque ca jamono jooja dañu bindoon bataaxel Nous ñu tous bâtir ensemble en Sénégal de justice et de paix Nous bëggoon rappeler li ñu nous keroog Nous ko jëriñoo tey nous, doon sunu nous les ndax ñu nous a def nous kanam kon forum fale ca Thiès bu baakha ba ñu ngi ñaax ñépp ndaa ñu góorgóorlu ànd ci ñaan ba yàlla musal ñu ci mbas mi covid 19 loolu laaj nag ñuy mun a dimbalante jàppalante bu baax a baax ñi gën a am doole jàppale ñi gën a néew doole surtout bu demee ci affaire vaccin am na ay manifestant manifestation yi amoon ci fan yi ñu bëggoon a xam ne ñu bëggoon a wax ne li xew diggante Israël ak Palestine du affaire u guerru diine parce que ñi fa nekk di ci am tumuranke mën nañu nekk israélite mun nañu nekk sëriñ mën nañu nekk chrétien kon nag li ñu war a jiital mooy li mën a sàmm dund nit ñi affaire homosexualité def nañ ci itam manifestation li woor ba woor ci li ñu gëm ak ci li ñuy jàng ci sunu téere yi ànduñu ak homosexualité waxoon nañ ko Thiès bi mu leer nañ ñu ngi koy waxaat fii na na gën a leer nag